Sango, Sango, Sango, Sango, ko mu dem gunge ko mu ñibbi waay gunge ko mu dem gunge ko mu ñibbi waay gunge ko mu dem gunge ko mu ñibbi waay gunge ko mu dem

Sou Mas o Mas o

waaw dafa mel ni rek bu ngeen seetloo li nga xamante ne mooy li fi am dafa taxaw fii nga xamante ne moo di rond orange moom président Ousmane Sonko ndaxte cortège président Ousmane bëgg a dem wuyu ji fi ñu bëgg a jaar mayuñ leen ko dafa mel ni ñi nga xamante ne ñoom doy force de l'ordre yi dañ koo bëgg a imposer bu muy jaar moom président Ousmane Sonko ak ndaw ñoom àndal nee nañu jaaruñu nooñu dañoo am seen yoonu bopp te dañ koy respecté. moo waral ñu téye ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko fii nga xamante ne moo di rond point orange moom président Ousmane Sonko mi nga nii mënatul a avancer moom président Ousmane Sonko tey jii mi ngi nii taxaw na fi nga xamante ne moo di rond point orange ndaw ñi di ko exprimer seen solidarité waaye nag fi mu ne nii kële nga xamante ne moom mooy chef de protocole di Jibi Ndiaye ñu ngi waxtaan ñi nga xam ne ak ñoom ñooy takk der yi pour ñu mën ñoo bàyyi ngalawaay ñu mën ñoo bàyyi ngalawaay ñu jaar yoon wi nga xamante ne moom lañ bëgg a jaar ndax loolu li nga xamante ne moo di liberté président Ousmane Sonko la ndax loolu li nga xamante ne mooy choix wu président Ousmane Sonko la te liberté boobe di choix boobee li ko ko may moo di constitution wu Sénégal constitution wu Sénégal nag mooy nday charte réew mi Conscience Sénégal mo institution Conscience Sénégal mo moy déterminer Sénégal nakalay démé Sénégal je suis déterminer li nga xamné force de l'ordre constitution Sénégal suis may président Ousmane Sonko suis déterminé, ñu déterminé, mu né day wuy ji bu ko mu dox bu ko di hélicoptère bu ko jël li nga euh, choisir ànd ak ndaw ñi di raam ndànk ngir wuyu waaye nag fi ñuy bañ ñu jaar mooy buntu université foofu la ñuy bañ président Ousmane Sonko jaar fa te yoon woowu kat moo ne tribunal la jëm yoon woowu kat moo ne Médina la jëm waaye dañ koo bëgg a yoon wu muy jaar moom président Ousmane Sonko nee na nanguwul loolu moom président Ousmane Sonko nee na loolu du ko def moom président Ousmane Sonko daal mi ngi nii ci rond-point orange a jëm. avenue Cheikh Anta Diop bi nga xamante ne moo war a jaar buntu université Cheikh Anta Diop waaye dafa mel ni dañ ko koo bëgg a xañ dafa mel ni dañoo bañ mu jaar fa lu waral ñu bañ mu jaar fa waaye nga la waaye xam nañ ne université ndaw ñaa fa ne te xam nañu cofeel bi am ci diggante président Ousmane Sonko ak ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ca